bismillahi irrahmani irrahim tey mooy sunu juróom-ñaareelu bind ci sunu qasida ak laysal birru sëriñ bi nee na nawaytu xijratan ilayka walahu wa nusratan kammil marami kullahu dafa tàmbali di ñaan ak di jaayante ak boroomam subhanahu wa taala ci biir ñaan yi muy ñaan nag ci la ñu xamee ne ndekete xasida gi mi ngi ko def ca géej ga ndax la koy tegtale mooy ñaan yi muy ñaan saa borom delloo ko bu liggéey bi jeexee mu delloowaat ko Touba ak Daaru Salaam xam ngeen ne xasiida xam fu ko sëriñ bi defee léeg dana xaw a jafe lool lu dul nag xasiida yi nga xam ne sëñ bi moo ko taarixal boppam waaw moo ko taarixal boppam moo wax ne maa ngi ko def ci atum nàngam wala muy xasiida koo xam ne ñi xam ñépp xam nañ ne ay Matlabul Fawzayni yu mel noonu ay raaya yooyu day leer nañ ñi day leer nañ ndax nee ñu sëriñ bi daana bind ak xasida toog lu yàgg du ko génne doo koy génne su ko defee nag jamono jëm ko génnee ñooña dañu daal di jàpp ne kon xasida gi sëñ bee ko moo koy doog a taalif xëy na euh, waaye lu mel nii dana ko leeral mooy boo jàngee xasida gi dégg waxin wa rek nga daal xam ne kon ndekate tabarkàlla nee na nawetu yéene naa man Cheikh Ahmadou Bamba xijratan gàddaay ilayka jëm ci yow yàlla walahu ak jëm ca yorantu ba wa nusratan ak dimbali diine islaam kammil yàlla na nga mottali maraami sama càkkuteef kullahoo léppam nawaytu yéene naa an ufaariqa ma tàqalikook al fujjaara saay-saay sax bi ka ci sa kartan yow yàlla wa an ulaasima ak ba ma taqook al abraara way baax ña ndeysaan nee na la saxaaba ya defoon mooy gàddaay bañ tudde leen al muhaajiruun may yéene naa ko doonte fekkewuma ko yéene naa gàddaay yonante bi salaa salaam nag nee na ki gàddaay dëgg-dëgg mooy ki fekk li yàlla bañ mu gàddaay ko wan ko ginnaaw <laughs> waaw wan ko ginnaaw ndeysaan kon maa ngi gàddaay jëm ca yow yàlla ak jëm ca yonante bi sallallahu alayhi wa sallam na ko saxaaba ya defe woon maa ngi yéene dimbale diine islaam kon nag nang ma dimbale yow saa borom ba mottali mboolem lépp lu ma yéene di ko bëgg a wut suñ borom man de maa ngi yéene sama liggéey bi gaaw jeex ba ma tàqali koog saay-saay su bon sii mooy alyahud ak nasaraan te nasaraan ñoo àndoon moom ci géej ga waaye loolu ci sa kàttan laa ko yaakaare waaye ba ma delluwaat ca réew ma nag ba ànd ak takkoog gaaña nga xam ne gaañu baax lañ te moo di jullit ña mu ne billaahi ci kartanul yàlla war rasuuli ak ci barkeb yonent bi wa sihaabi ak ci barkeb sahaaba ya arjihu ci lay delloo aajilan ci lu gaaw ilaa ma maabi jëm ci sama delluwaay yaa rabbi yow boroom bi xaqiq yàlla na nga dëggal lii ñeel ma rajaa yi sama yaakaar bi rasuuli ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa suqta nga màng bi ci barkeem lii jëme ci man man Cheikh Ahmadou Bamba abada faw afdala suwul ngën gi fajuk aajo ndeysaan ilayka ci yow asko laay jàmbate asko danaa jàmbat ilayka jëm ci waaye boo gisee mu jiital ilayka gi mooy yow dongal maanaam su jàmbat ci yow rek laa koy jëmale waaw waaw xaalaka sikaay ndeysaan xam nga ba doon asko ilayka mooy maa ngi jàmbat jëm ca yàlla waaye bis nag mën naa ñëw ma jàmbat jëm ca keneen waaye dana ko ilayka askoo ci yow dong laay jàmbat jëmale samay mbir yi mu yow aji tedd ci tatabe yi sama ndoxandéem mooy sama tumurank gi faruda nii yàlla nag ma delloo li turba di jëmme ci sama sama suuf sax te moo di tuubaa mu kammalal mbir mu may ko ñu matal mu ma sëkk ndeysaan nee na insha allahu rabbi dinaa delluwaat fa ma jóge woon mooy sama réew ma sama delluwaay ba loolu nag du ci du ci sama kàttanul bopp maa ngi koy defee ci kàttanul barke bi yonent bi ak saxaaba ya ca lay delluwaatee waaw kon sëñ bi wóor na ko ne moom dana delluwaat dana delluwaat moom loolu leeroon na ko xam ne na day liggéey rek mu ne sunu borom li may yaakaar ci liggéey bii yàlla na ko dëggal ci barke bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lépp luy fajug aajo na nga koo mu jëm ci man man day dëgg tumuranke naa jaaxle naa lool wéet naa waaye nag du jàmbat mukk ndeysaan wala astaki lil xalqi min faqdi anhumi waaw jaaxle wala ñàkk wala du ma tax saalit mukk saa yu may jàmbat samay mbir ci saa borom laa koy jàmbate ndeysaan sama xel dem ci bayit yu tedd yooyee soppeem ba alhaji malik si defoon ndeysaan fala budda min shakwa ila allahi qurbati fa maa liya gayra allahi jaabiru kasrati waaw si alhaji malik ndeysaan jekk-jekk daan waaye waaye mënta ñàkk nag mënta ñàkk nag ma xool problème yi ma am yépp ma dem jógal ko yàlla jàmbar ko yàlla ndax du ndax xam naa ne mënumaa dem ci kenn mu may di ko jàmbat yàlla rek moo fi nekk waaw du ma dem ca kenn di ko jàmbat ñoom foofu lañ tolloon moo tax ma ne ko ilayka asku yaa karimu xurbat sama ndoxandéem yow laa koy jàmbat de yàlla na nga yàlla nag ma dimbali ba lépp mat tarbiyee gi nga waroon def mat sëkk liggéey bi ma doon liggéey la mat sëkk ba ma delluwaat sama tuubaa googu waaw foo déggee mu tudd turbat yi rek xamal ne eh, tuubaa eh, man am nag mu yaatu ba réew mépp dugg ci sama suuf ndeysaan mi nga ñaanaat yaa rabbi yow saa borom yow borom bi inni naka man sañ Tuubaa de laa akkoonu lu ma nekk mukk mushrikan di aji bokkaale bi ka ak ci ak yow layaa dan dara fakki nii yàlla nag ma fegal man ka nga xam ne ashraka moom dafa bokkaale najjeyte nii fegal nga ma musal nga ma mi ne lësi na ca gaañ a nga xam ne sallasu def nañ la ñett yow yàlla waaw ñettal nañ la wa baxasu te ñu gësu fii mataayi ci samay bagage wa samay bagage wala samay yére wa duyóori ak samay kër waqaytan yihim fegal nga ma leen ndeysaan waaw wax waxit la ba jàngi alfiya da nga xam euh, xeetu damir yi ndeysaan waaw waxut waqaytani iyaahu waaye waqaytanihim mën naa nekk naxu nangu na ko waaw fal tarudhum yàlla na leen tàggat saramadan faaw lee ñeel ma warut lii te nga tàggatal ma kulla man képp koo xam ne tamarrada dafa féttéerlu ndeysaan ne saa boroom man Seex Ahmadu Bamba day maa ngi lay seedeel bokkaale la ak dara moom du ma ko def waaw ku bañoon mbokkaale la laa tushriku billahi yaa ixwaan yi waaw yéen mbokki taaliba yi wattandiku leen mbokkaale yàlla fekk loo xam ne yàllaa ko yeyoo ngeen di ko jëli ko jox keneen ëpp naa def de ëpp naa ab sëriñ lu mu baax baax ab jaamu yàlla rek lay mën a doon nekk ku xeebu ci kanamu borom bi subhanahu wa taala moom rek moo kawe ab yonent lu mu tedd tedd ñu koy tuddal ay ngëneeli ay xar baax loolu defu ko ci kartanam de yàllaa ko ko yàllaa ko ko jox rek mu man koo def de bu taxawee ci kanam borom bi nee na in huwa illa am an'amna alayhi waaw waaw ndeysaan nasaraani biñ ne Isa doomu yàlla la mu ne Isa de du dara lu dul ab jaamu yàlla rek loolu mu def loolu mu def ngeen ngeen di ca waaroo ko jommi loolu man rek man yàlla rek maa ko jox de maa ko xéewale waaw di raay ay euh, tabat di dekkle ay néew ak loolu lépp ma ngeen ciy waaroo ba di ko jiiñ yàlla ab jaam rek la bu ma defal ay xéewal mu man lool de sunu borom kon képp kuy bokkaal yàlla yàlla nag moo ko fegal kon képp kuy ab taalibe war ngaa góorgóorlu wattandiku bokkaale yàlla di jaawale mbiri yàlla ak mbiri sab sëriñ ëpp naa def suñ borom yaa ma musal ci nasaraan si nga xam ne dañ naan yàlla ñett la ndeysaan yaa ma musal ci ñoom jamono ja nga xam ne dañoo ñaaw njort ci man ñëw sama kër naan dañuy wisit waaw tubaab ba yónnee lu kër ga di seet balak doom gis fa téere war nga Cheikh Moussa Ka yàlla ko yàlla gërëm ñoom ñi nga xam ne dañ laa yepp ba di def ñett naan yàlla ñett la doom jeeg euh, ndeysaan Euh, bàyyi jeeg doom jeeg xel mu sell mi nee na ñoom ñoo ñaawoon jot ba ñëw sama kër di visite waaye waaye nag yaa ma dimbale ba musal ma ci ñoom maa nga leen yaan yàlla ma leen tàggatal yàlla ma tàggatal képp koo xam ne daal dafa féttéerlu yàlla nag ma ko tàggatal ba mu nooy anta yow yàlla allasi yaay kenn ki nga xam ne kafayta fegal nga ma wala fekk nga ani walis ma al aydi al aydiya loxo ya ndeysaan day fii di kàttan ba léegi takarruman ngir ak tedd ngaa ko baax rek fa fukk yàlla nga bi yàlla nga dindi xànni walis ma xay diya sama jéng anta yow al ilahu yaay buur ba alwaahidu bay kenn al alqaharu ba dim nataakoon lakka ñeel na la tihid dunya am na ñu def tihid daaru tihid dunya gile kër mooy àdduna wa tilka daaru ak goo gële kër mooy ëllëg yowmal xiyaam suñu boroom yaa ma musal ci loxo yi yéefar yu bon yii yaa ma lay musal ci sax mbaax kon nag maa ngi lay ñaan jéng bi nga xam ne Euh, dafa nekk ci man yàlla na yàlla na ma ko dajjal ñoom li ñuy tuddee ab jéng mooy lépp luy tee nit ki maneeg boromam loolu ab jéng la ab tënk lay doon waaw tënk lay doon suñ borom man nga lool ndax yow yaay buur bi nga xam ne yow rek yaay kenn ki ëpp doole ñépp yaa moom adduna moom ëllëg yow mal xiyam tafaddalan yàlla na nga gënal alaya ci man fiihima ci adduna ak àlaxira la nga xam ne rajawtu yaakaar naa ko min ko ci yow abada faw muammaman mbir mooy lu ñu mataleen yaa rabbi yow bor yow buur bi yow borom bi listajib yàlla nag ma nangul samay ñaan yi bi mun muntaxaa ci daraja yonante bi sallallahu alayhi wa ma yàlla tànn wa kulli zi ibadatin ak képp kuy boromuk jaamu yàlla wa zi tuqa ak képp kuy borom boromuk ragal yàlla mu ne saa borom yàlla nag ma defal say ngëneel fii ci àdduna ak àllaaxira te defal ma lépp lu may yaakaar yow lépp lépp dara bañ a manqué suñ borom yàlla nag ma nangul sama ñaani ci barke bi yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ak ci barke bépp jaamu ko tu yàlla ak képp ko ragal yàlla rek aslamtu jébbal naa waj nafsiya nafsiya sama sama sama sama bakkan baatub jébbalu moom sëñ Tubaa ci yàlla rek la koy jëmee moom ko jëmale mukk ci mbindee waaw bu dee yonantu bi nag jaayante lay tudd baayaatu xayral wara lay wax waaye bu dee aslamtu moom eh, tabarkàlla léeg-léeg mu tegale ci yu bari ndeysaan waaw moom ñuy jàngal sax nag ca eh, alif laam mim innama sabiru wala tujaadilu allah min kulli karimin lu wax aslim lahu kullaka ne jébbalal waaw nga ànd ak nag iman ak islaam ak ihsaan ba mu demee ca euh, num tulati wa kaana xaqan mu ne billaahi aminu wa aslimu gis nga waaw yàlla yàlla gëm leen yàlla te jébbal ko seeni mbir waaw moom noonu lay waxee ndeysaan waaye wolof yi nag ñooy wax baatub jébbalu xëy na di ci jublu jaayante rek kon aslamtu jébbal naa nafsiya sama jëm ak saa bakkan ilayka jëm ci yàlla bil kitaabi ànd ak alquran wa bi xadiisi yi ak ci xadiisu yonante bi sallallahu faqut ni yàlla nag ma womat jëme ma lil ma aabi jëme ma ca delluwaay ba mooy ma ñibbiwaat làkk yaa moom xayaati sama dund yaa samiixu yow aji dégg ji abdan ma nekk ab jaam làkk ñeel la xadiman te nekk ab liggéeykat li nabi ñeel yonent bi jiddan lool muhammadin muhammad laay waxal de wasilati mi nga xam ne mooy sama sëriñ waaw mooy sama wasila fa salli yàlla nga dolli tedd nga alayhi ci moom bisalaami ànd ak doolee wóolu yaa zal yaa zal fadli yow yàlla mii boroom gëneel li ilaa jima ilaa jamiil aali jëme jëm ca mboolem ñoñña wa saxaaba ak saxaaba ya wali jut ta nga tabe di ma ñeel wa jut ta tabe li jëm ci man bile ak ci goreel wala ijaaba ak nangug ñaan suñu borom jébbal naa la saay mbir ànd ak nag jël alquran ak sunna si yonante bi di ci dox waaw ah loolu li muy tekk mooy nekk de kon boo jébbaloo boo jaayantee doo dem toog déedéet da ngay dem jéem a jëfe la alquran sandaan yàlla nag ma waat ca sama dëkk ba mu ne Touba wala sama réew ma yow yàlla sama dund yaa ko moom du ma dañ mukk di nekk sab jaam tey liggéeykatu yonante bi sallallahu alayhi wa sallam da ca yokk sax jiddan lool nekk liggéey sallallahu salaam kooku mooy Muhammad di sama sëriñ maa ngi ñaan yàlla nga doon def salaatu ak salaamu yow mi boroom gëne li jëme ko ci moom waaye jëme ko ci mboolem waa kër ak saxaabaam yi te nga may ma ak gore waaye te nga may ma al ijaabatu mu di wuyub ñaan saa yow ma ñaanee nga defal ma la ma bëgg te yàlla defal na ko ak gore mooy lan dañ koy tudd ci tasawuf ñoom ñi niti tasawuf nag ñoo xam ca dëgg-dëgg lañ ca lañ ca lañ ca jublu waaye bokk na ca ñoom lañ bëgg a gore mooy fexe ba seytaane wala àdduna wala bakkan du amati ci ñoom benn cër nga xam ne ay gor lañu ay gor lañu seytaane ak adduna ak bakkan ak bànneex mënatulee na nekkatuñ ab jaama bu dee noonu nag ñu bari ci ñun day nekk jaamu seytaan nga ne fu la seytaan jëmee nga jëm ko mënoo ca dara mënoo ca dara jaamu sa bakkan lu sa bëgg mënoo ca dara ndeysaan moo tax ñu aajowoo tarbiya bu dee ñoom saa saa bakkan dama moom dama ko kon léegi gore naa ca gore naa nee na lii jut yàlla na nga tabee jëm ca man yàlla na nga ma may rek bi aw bati ci samak dellu ilaa daari salaam tudd na turo kon duniyaa ci àdduna waxra ak àllaaxira wa wali tuubaa ak dellu jëm ca tuubaa bi salaam ànd ko mucc an nisrif yàlla na nga ma wëlbatil al ida noon ba wala noon ya wa kullama ak lépp loo xam ne dana naqari ñaaw wali ya yasir nga jàppandalal ma lépp loo xam ne dana ko sopp al anfusu bakkan ya al anfusu bakkan ya waaw ma tastahihi al anfus loola ca àjjana ndeysaan suñu boroom yàlla nag ma may ma liggéey bi jeex ba ma dellu daaru salaam dellu tuubaa ci àdduna ak àllaaxira waaw ànd ko mucc nag loolu yàlla defal na ko ko mu des bis pénc te day am sunu borom yàlla nag ma yàlla na nga wëlbati noon yi te nga wëlbati mboolem lu ñuy fexe ci lu bon mu jëm mu bañ a jëm ci man teyit nag lépp loo xam ne nit ku baax dana ko sopp te man ma bokk ci nit ñu baax ñooñee yàlla nag ma ko yombalal ndeysaan suq yàlla na nga màng lii jëme ci man sëñ Tuubaa mooy womat jëme ci man rek dawaaman ci lu sax xayrama lu bokkut ak la nga xam ne taraktu bàyyi woon naa ko de li wajhikal karim ngir sa jëmm ju tedd ji xëy na tubtu mooy ba ma tuubee ndeysaan yassirhu yàlla na nga ko yombalal lii jëme ci man wajaalhu ta nga def ko rabaaxan muy ak tono lii di ma ñeel wa akbara ridwaan ak gën gaa mag gi ngërëm wal falaa ak i mbégte ndeysaan ak i mbégte ndeysaan nee borom bi subhanahu wa taala maa ngi lay ñaan lépp lu bokkut ak la ma jaayante woon ak yow ndeysaan waaw la ma jaayante woon ak yow daa am yum jaayante woon yu ma jaayante borom bi ne da koy bàyyi ndeysaan <laughs> waaw loola nag moom jaayante naa ne du ma dama koy bàyyi donte loola araamul sax ci yooyu daggan gi la bokk waaye nag lu bokkut ak loola ci ay xéewal ak na koo mat jëme ci man waaw waaw ba may tuub dafa bari lu bari lu ma jaayante woon <laughs> ndeysaan moo tax ngeen ngeen dégg ci xasida muy indi ay taraktu rek waaw taraktu maa kaana lii bil bayhi nangam ndeysaan wax ko ndeysaan léeg-léeg ngeen dégg mu daal di tudd euh, ab ab tënk waaw ab tënk léeg ngeen dégg mu ne bay ay nangam nangam nangam sama jaayante ga yàlla nga ma ko nangol nangam yooyu yëpp ay biir la yu mu jaayante boromam waaw yumu moom nag moo ko xam la ma jaayante woon ak yow la ma jaayante woon nee na kon lu bokkut ak la ma jaayante woon nga xam dama ko bàyyi woon ngir sa jëmm kooku moom dogu naa bàyyi naa ko lu bokkut ak loola yàlla na ko ko wommat mu jëm ci man te nga yombal ko lool te nga def ko muy tono te nga def ko mu nekk gën gaa ngaa gi ngërëm waaye gën ngaa màgg màggi bégte insha allah boo liggéey nu tàmbalee xata yasira kullama minni sadar xayra xayra ridain wa yulaazimul bashar allahu aalam